ziar jaajëf ñoom Aliou ak euh, ñaa gaa yëpp rek ñoom Matar ay sa mbay internet yeeg auditeurs yi jërë ngeen jëf kontaan ci euh, Mamadou Mohamed Ndiaye ak. Euh, Junior Diagne Diagne sama waa ji loolu maa ngi nii di la ziar Ababacar. di coono yi tuwarkalla tuwarkalla démb de am na ak as lëf su lu noppalu. waaw ah, démb moom ñëpp noppalu. ñu ngi ca Toussaint ja yeewu nu fajar daal nu nelaw ba kii xaabaabal tuuti sogom di. tubarkalla tubarkalla ana famille bi. sant nañ femme bi. sant nañ. ana femme bi. sant nañu ngi yëg ngeen ne jigéen ñi góor ñi leen ëpp ci réew mi yëg ngeen loolu. loolu de lu bees la moom. nun góor ñi noo ëpp jigéen ñi ci réew mi. na ko ne yem ci benn fi mu toll nii. léegi seen àqu lay tàlla. waaw seen àqu lay tàlla. waaw. yow recensé nañ sama kër bind ma. yow man mii ñëw sama kër bind ma. yow eh, bindu la. dañuy wax dix huit millions. trois cent mille nangam sangam. Euh, trente deux mille quatre cent soixante treize. waaw quatre cent soixante ak man. Ah, waaye bokkoon ci bind mi ñu ma de. ak sa waa kër. sama waa kër de wóoruma ndax <laughs> du ma fa yenn waaye man de binduñu ma. mais bu ñu yeggee dañ leen di laaj. déedéet man sama waa kër yar naa la yar goo xam ne duñ compter sama njaboot di joxe. ah. alu ah, tax. ah maa leen yaree noonu. da nga dugg ci kër kër gi ñaataa fi nekk nga naan diw ak diw ak diw ak diw ak diw.

li ma mënta nangu mooy réew mi góor ñee ëpp jigéen ñi. loolu mooy li mooy li feeñ ci xayma gi. léegi nag na jeune collègue yi jóg. am na booy bu ne baa boolewuñ jigéen ñi rase ci góor ñi. waaw loolu tam dañ ko war a def les lijjanti. dëgg la tamit ah jaaxal na ma de. <laughs> waaw dana war ko jaaxal na ma de. jaay partenaire yi wax. ah ñi ngi fi rek ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ñoom partenaire yi ñuy mm-hmm. àndal ci xalaas. comme waxtu yu fii la toll. Mm-hmm. dañ leen di remercier. muy batterie ça, batterie automobile bobarbi baax bi Africa Fly Tour yi tax nit ñi mëna am green card mëna dem États-Unis wala mu leen di accompagner ci walu assistance visa ngir ñi bëgg dem ci réew mu melne Canada ñoo leen di toppatoo lépp gunge leen ba ngeen ag Africa Fly Tour établissement wa kër Serigne Touba Fallé frère ñi indi gam bi nga xam modi vite fait ñu leen jaajëfal Wa Optique Vision Plus Sénégal également borom lu ne du baax yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baaxa baax mais ñen du savon créole di saabu bu baax bi nga xamante ne ji moo aay ci toppatoo pou doomu aadama impurité bu mu fekk ci sa yaram da koy dindi ndax dafa am ay gaam yu bari te wuute am na savon créole carotte am savon créole miel ak savon créole citron ñoom ñëpp ñu leen di jaajëfal ci ni ñuy àndee ak ñun ci ci xalaas ñu ñu sóobu ci xalaas yi Ababacar. nañ bala ñuy tàmbali. bii da ko hmm. bëggoon def xalaas express. mais dama ne ko li ngay wax am na solo am solo goo xamante ne ji damay bëgg nga waxal ko sa bopp. Mhm. ki benn femme la bu nekk Amérique. Mhm. ngay fàttali ko fan yi la ca ginnaaw am nay manifestation yu fi amoon bitim réew am ci ay consul yoo xamante ne dañ faa dem caxat caxatee ko. Mhm. am nañ fa yàq consulu Sénégal ba. waaw ay sut ambassade bi. ambassade bi la woon ambassade bi ca New York. du New York dong sax. mais moom mii nag. waaw. New York googu la nekk. Diagne dañu koo waxul waaye ndeke doomi Sénégal yi nekk bitim réew. bëgg ay këyit mënuñu koo am ndax li ñu dommage dégâts yi am ci ambassade yi. Mhm. kii firnde la ci déglu mu wax la ñoom coono bi ñuy dund. Euh, man dama amoon benn cri du cœur rek bu ma bëggoon ngeen waxal ñu ko foofu ngeen baal ñu li ñu naan euh, ñax bu wow bi dina lakkaala bu tooy bi defe naa ne fii moo ñu daal ci ambassade amerique bi ci New York boobu ba tey dañ fay woote mais kenn du wuyu ñu ne liggéeyaguñu. te ñu ngi soxla suñu passeport am cas d'urgence yu ñu war a daw rekle ji ko mënuñu fexe ba génn fi dangay woote aussi Washington DC ci ambassade ba pour uti sef sauf-conduit mënuñoo fexe ba ñu wuyuñu dañu ne de office bi dafa close liggéeyaguñu loolu tamit neexul daal du jàmm ma bëggoon ngeen dimbale ñu ci ngeen waxal ñu ko ci rajo bi ñu dimbale ñu ñu ubbi seen ambassade yu ñu liggéey suñu passeport yi lañ soxla mënuñu fexe ba génn fii def dara ndax ku amul passeport amoon suuf conduite doo xam fooy aw pour génn léegi nag ma ne nañ leen woo xalaas mooy kii rajo solution bi nga xam ne lu fi nit woote jàmbat ko dina ñu si dimbale ñu waxal ñu ko autorité yi ci kaw ñu dimbale ñu ñu daal di ubbi seen ambassade ñu liggéey xale yi ñëwoon doon xeex billaay ñooñu tukkiwu ñu amuñu soxla fenn ñoom Amérique lañ doon wër ñëw nañ egsi nañ toog nañ nuroowuñu ak ñun ñi nga xam ne dañoo am ay sunuy soxla ci Sénégal googu Afrique ak feneen ak feneen yu ñu war a dox am sunu passeport bii rek lañu am muy passeport sénégalais bi su jeexee foofu fii lañu war a mën a renouveler mënuñoo génn fenn fenn fenn amuñu sauf conduite amuñu passeport ngir yàlla ngir yàlla sarax leen ñu. ngeen wax ci bok ñu jàppale ñu autorité ubi ambassade ndax ñu mëna am passeport nañ ñu dimbale ngir yalla billahi lool la na naa leen ko wax crédit cœur la ci man bobu ba mang koy jambat ci la na na aw khalas khalas luñ fa aw mu rek lew sarax leen ñu ci ngir yalla khalas barkal ñun nak li lañ ci man hmm. waaw ak wax ñi deug Wow, wax sénégalais yi nekk bitim réew dëgg consulat yi ñuy toj ak ambassade yi ñuy toj du fulla du fayda inconvénient yaa ngi ni gisuloo benn tubaab mbaa benn américain bu nekk bitim réew am lu ko naqari ci réew mu dem ci ambassade ba toj ko mhm. la ngay toj après yaay wëlbatiku di daw ca gannaaw ngir soxla wenn kayit ngir lijjanti sa fa ngay wala sa benn mbir ci réew ma nga ne mu mel ak marwa ci yow mhm. kon nit da ngay mer ba pare muus mhm. réew mi nu ne ñu ngi laal bant mus noo def coup d'état ci Sénégal gi on a une armée républicaine Senghor ba ci Macky Sall ba après Macky Sall ki fi toog karta koy fal karta koy fol nun am nañu maturité boobu kon lu waaye mer mer mer daatal sa carte d'identité sa carte de nga toog bu ne bis wote ba jot na nga dem ci urne ya tànn kala neex jël xobam ni ko ca pëy bu ngoone mu saxaar xel lu neex way wi daal <laughs> jaañ man dafa am yoo xam ne xàmmewu ma ko jaaxaan di saw waaw waaw soreyaan toowunu doo tooyal kenn doo tooyal kenn sa bopp doo ngay tooyal ñaata bus Dakar dem dikk lañ fi lakk. wallay ñaata otoy jàmbur lañ fi lakk. wallay teer bi ñaata magasin waaw. dem nañ bay dagg ay fil ci teer bi. waa léegi ak BRT ji. parce que mu yegg te ñun doomi baadoolo yi. parce loolu nee nañ dañoo mer. waaw mu neex danga koy fay. mu naqari da nga koy fay mu naqari da nga koy fay. koy fay koy fay ci nii maa nga fay ko. Ah, euh, euh, euh, nu mu tëti bus yi nga dajeel di taal di lakk. waaw. maanaam li wolof naan merum ginaar la saful tusuñe ah, saful tusuñe de problème bi mooy munoo wax a wax a wax a wax bal ki la merloo baa boo ki nga ne moo la merloo dugg ca yëf yi taxaw ci arab yi di dugg ci eh, bus Amadou Sall dugg ci bus c'est-à-dire il faut que ñu gën a yaraat suñ bopp ah, jaañ yàlla daf maa sutural hmm. ma dem ci ci ci ci ci ci ci mennam réew hmm. ñuy football hmm. ñu ne une minute de silence jaañ ñëpp ne tekk ki sa wet di nooyi sax da nga koy dégg ci stade bi ni mu ngande wallahi wallay ma ñëw fii senegal ñu ne une minute de silence. <laughs> gars yi di wuy téléphone. jaay ma jaay ma ji puusal sama kanam gisuma. fi nga toog téléphone bi ci une minute de silence. allo yaa may seet ñu ngi une minute de am yu bari yoo xam ne ñun habitué wuñ ko. et loolu dafa bokk ci savoir vivre doomu aadama. wallay man dégg naa fi ay xale yu nekk ci biir gaal gi ci biir géej gi. Mm-hmm. di wax ba ni abaa dimbali ñu lii mu siiw ñëpp yëg ko ma génn fii wax. <laughs> waaw tey xale yaa ngi. tës ci géej gi mu metti ñëpp nag. ñëpp la metti mu metti ñëpp. ñëpp mais tey ñu doon wax xale yi nañ dem nañ dem ñoom duñ dem. duñ te xale yi bu ñu faatoo leen rek lañ ci mën mooy jël benn affice daal di koy posté daal ni suñu frère. Euh, suñu rip te ñoom duñ dem. te xale yaa ngi dee ci géej gi. foog na muus. am na lu ma metti sax ci ci dem li ma ci metti bari na. waaw mais ñiy jël seen doom yu ndaw. Mhm. di leen dugalaale ci gaal. ah keroog gisoo dem muy nekkoon ci gaal gi lekk nit ñi ngi tooñ. ak jigéen ñi ñu siif ci gaal yi. jaañ fii jigéen juñ fi dugal ci sëy boo bëggul nga ne mariage forcé la. waaw wala tax ngay forcé sa doom di ko yóbbu ci gaal. dëgg dëgg est-ce que moom am na choix wu dem tey boo ko doon laaj. waaw yow kay booy dem bàyyi fi sa doom. mais ñi jël seen doom yi dañ yóbbu ci gaal yi tamit ñu ñu war a wax dëgg la. Ah, kii moom. ba pare njaay nit ñee ngi escroquer nit ñi. waaw waaw dañ la escroquer ay bien wu jàmbur yi ñu escroquer kii de xam nga lu ko dal <laughs> ab moodu moodu la bu nekk bitim réew te itam li nga tëjee xalaas bi doy na waar trop moom loolu dinañ ko waxtaane itam loolu la li nga tëjee xalaas li nga tëjee sa sa revue de presse ji ah. sa repo ji loolu dinañ ko waxtaane <laughs> bi laay laay li demal nan dem kii daal bitim réew la nekk am kër gu muy jaay fii benn courtier woo ko ne ko dafa ñu bëgg kër gi hmm. yéen ñi bañ am kër da koo gën a sedd. Mbadou. Diagne déglul. acca. dama nekk bitim réew yàlla def ma am benn ci samay bien yu mu bëggoon euh, mettre en vente. ma joxoon ko benn courtier courtier bi war ko war ko jaay. léegi nag à ma grande surprise mu woo ma le matin très tôt boobu ñun il faisait dix heures ici euh, en Europe moom mi ngi nekkoon huit heures au Sénégal mu woo ma ne ma dafa am benn docteur Fall un certain Mamadou Fall bo xamné ne que dafa intéressé wu ci bien bi mune mom moom dafa wara ñibi France jabaru tubaab la am dafa bëgg jënd bien bi le plus vite possible euh, ñi def le nécessaire parce que mom bëgg nako trop dal mais vu ni muy waxé ak ni muy doxé ma japp ni mom xaritam la mom le courtier mune ma légui je vais te donner même son numéro bu ko defee yow nga woko par la suite ci la Wadi le certain monsieur Fall mané ko yow sama doomu bàyyi nga nuyonté non waxtaan ma wax ko fi ma bok mu wax ma fi mu bok et cetera bi ñu mu ne ma man bëgg na sa kër gi wax deug na yalla bëgg na ko jënd euh, léegi ma wax ko prix bi il n'a même pas discuté quoi pour côté prix né ma non man dama ko bëgg def cabinet dëkk fofu ci ci kaw ci suuf ma def ko sama cabinet di liggéey fofu quoi mané ko ok c'est bon loolu dina arranger sax cité bi quoi voilà parce que mon j'ai d'autres villas yu ma yu ma mon utiliser quoi bii mom dama ko commercialiser vite fait Donc ko remettre en vente quoi On est d'accord ñu commencé sama mandataire def def def ba au final euh, l'après-midi ne il faut ñu contacter ce notaire sama notaire fi mu nekk wax sama notaire et tout ça mandataire sama cousin la yaayam mon jox sama papa xamna ko bu baax xamna jiko mo ñu c'est un gars très sérieux et puis quoi bi ma woowee mu ne ma gars yi nee nañ expertise bi ma ne ko effectivement expertise bi defuñu ko même notaire bi sax bi ma ko woowee léegi nii elle ma laa signalé mu ne ma léegi moom waa ji nee na am na benn expert boo xam ne mën nañ defal expertise ma ne ko ok amul problème léegi expertise bi nekk somme bi mooy mu nekk deux cent mille CFA mooy trois cent euros léegi bi mu defee loolu mu ne ma waa ji nee na ñu fay ko deux cent mille ma ne ko non grand nekk mu wàññi ko cent cinquante mille wala cent mille monument normal défendre un couple qui demeure pour bien vivre à bout d'un jahai mais nous nous aidons mais quoi ça veut dire que 150 euh, 200 mille il y a un capital de 200 mille en quelque chose donc c'est raisonnable après mon union est que sur le coup 200 mille il demande un gros gigantesque soirée à vers 15 h 13 h heure sénégal à 13 h là le finan parce que 15 heures le on fait monument où ailleurs il y en a fiscalité fait il y a quoi 200 mille monnaie de la courge là mais

dégg nga <laughs> moom bi ko représenté woon. waaw yi dañ koo nax mais xam nga ci naka. Hmm. déglu mu yeggale ko. moom tamit il a été léegi courtier bi nga xam ne nag moom moo ma boole ak euh, le Mamadou Falla soi-disant docteur courtier boobu man xam naa ko bu baax mais moom moo ñu moo ñu moo ñu yóbbu en erreur ñun ñëpp parce que moom bi ma woowee ce matin le matin daf ma xamal ni que sama benn waay moo bëgg kër gi loolu nag. moo tax ma jël confiance yëpp jox ko parce que mag la moom tamit il a plus de soixante ans nekk na mag te xam naa jikkoom daal waaw bi ñu demee ba ngoon gi ba trois cent mille dugg waa ji ne expert bi ngi jógee Thiès mi ngi ñëw mais mi ngi jógee Thiès mi ngi ñëw mi ngi jógee Thiès mi ñëw ba ay dix neuf heures te était quinze treize heures au Sénégal ba dix neuf heures gisuñu kenn ma avertir sama waa kër ne bu buñ bu ñëwee ubbi leen kër googu del tel kër ngeen di ubbi leen ko et cetera ñoom ñu dem foofu defar yëpp teg. dem fa tok tok tok gisuñu kenn finalement ñu ne ma ñoom gisuñu kenn quoi yalla def ma wo grand bi mané ko man dal li ma gis ni xéñul neex dal lu ma bëggon dal moy ñu jéem xol nan lañuy def pour jot leen parce que man dal il me semble que yaa ndax nak quoi parce que le Mamadou fala la notaire bi je lui ai même forcé la main pour que me recevoir leen demain vendredi mais

xam nga tay nga tok di jaay sa alal nit une personne de confiance ne la dama dafa am ku ko bëgg nga ne ko waaw ngeen dem ba ci biir journée bi sa notaire xamal ne la il faut expertise ñoom ñu la am expertise kon da ngay ni ngi ci yoon ndekete le yo yo yo ay nax la bi ñu ndekete mom néna euh, courtier bi bu ma jënd kër gi la may millions ndekete lolu yëpp man ci à la fin laa ko yëg biñ demee ba ci biir sama mandataire man munima ni courtier bi courtier bi ma fait savoir que ni waji sur Facebook lako xamé ci la wo courtier bi ma ko yow mu naa ah, ko man j'ai confiance en toi énormément comment tu peux me dire que ni waji sur Facebook nga ko xamee mu non man sax xaw ma ci Facebook sama benen collègue courtier moko xam sur Facebook mu bëggone jënd fi benn terrain ci cité bi à 23 millions ba ñëwon ci cité bi man jotuma koo gis ñu ni c'est un certain docteur bu nekk euh, Mbour cabinet fofu la nekk un certain monsieur Mamadou Fall Mamadou Fall 15 mo nekk ci WhatsApp am léegi nag ñun déposé nañ suñu plainte au brigade de recherche su mënee mu délo xaliss bi parce que 300000 xaliss la du xaliss te maa ci avertir bép sénégalais képp koo xam ne yaa ngi jaay sa bien bul ko jox courtier parce que courtier problème yu ñu nekk ñun Modou Modou ñoon ci dugal problème yu ñu nekk ñoom li ñu bëgg rek mooy ñu jotee seen xaalis du ñu xool benn inconvénient ak benn souci ci comment ils peuvent juste avoir de l'argent loolu moo leen intéressé léegi nag ñun en attendant nañ suñu nañ suñu ba aussi tas suñu la non nu ñuy def ba yëf yi gën a gudd xalaas ji. kon tàggatoo waaw. non du ñu def ba xalaas bi gën a gudd. ak ñun du ñu waxtaan ci affaire courtier yi li li fi am ak yi. li ñu war a waxtaan daa bëri. non li ñu waxtaan kay moom ni ñuy def ba xalaas bi gën a gudd ñu seet émission yi jiitu xalaas nu ñu koy def ba wàññiku xanaa El Hadj Assane nga bëgg a teel a yëkkati. waaw. Ah. bu ko jaree ñu teel ko yëkkati. El Hadj moom 9h mu tàggatoo. El noonu may tuuti ñun tam ñu laal. <laughs> mooy dëgg tam noonu may ñu laal naa tàggatoo moom. <laughs> léegi man teg ñëpp dinaa xëy fii chaque jour 9h je viendrai faire la pause de l'antenne 9 nu ba pare jaañ yéen réew mi clamé na ma ak yéen bu subaa laa koy wax loolu. réew mi kalaame na ma ak yéen journaliste sportif yi nekk RFM. man daal mu ci CAN bi. ak ci championnat Sénégal bi. seetaan ngeen leen trop trop trop loolu dinaa la ko wax. bu subaa ma mani man Diagne. sama ginnaaw ba tànk takk ma benn ndombal tànk. jëluma benn décision. appliqué laa fi nekk. en direct ngeen doon déglu noonu. c'est tout. établissement waa kër Serigne Touba Fallé frère mi ñu indil Gambie di vite fait.